cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo site internet bi di net bi TV li gën fës ci bopp xabaar yi dañ koy doore kat yu nga xamante ne kii di ay peu dafe daal la mu na fi nga xamante ne moom mooy sa direction générale des élections ak fi nga xamante ne moom mooy sa direction de l'autonomisation des fichiers ñu gën koo ab huissier boo xamante ne rek ci wàllum justice nag lay liggéey ginnaaw génn bi nga xamante ne génn na ko nag ma ngay naqarlu bu baax anam bi nga xamante ne rek moom la bërëb yooyu yooyu nag ministre bi ñu dénk kaaraange biir réew mi nam koy eh, doxalee ba tax na nag moom ayib dafay yëkkati na ay kàddum mu jotee nee na ordonnance bi wane nag dañ dugalaat kii di Ousmane Sonko ci liste électorale yi te mu tukkee woon te tribunal grande instance bu Dakar jamono ji nag nee na wutali na fi nga xamante ne moom mooy ca direction de l'autonomisation du fichier ak fi nga xamante ne rek moom mooy directeur Bruno Badiane dafa lànk ba tëdd ci suuf na du ko recevoir moom nag mu daal di yëkkati ay kàddu rek jarale ko nag ci directeur général bu élection production di Thiendella Fall mi nga xamante ne rek jamono ji la muy kenn xamul lu doon ba rek moom Ayib Daffé la mu di xam ne mooy ñëwaat na nag doon sàkku rek comme na ko yoon waxee woon ñu dugal Ousmane Sonko ci liste électorale yi ba noppi daal di koy joxe li nga xamante ne moom mooy fichier parrainage am waaye mbir mu nu mel nag ginnaaw ordonnance bi nga xamante moo tukkee woon grande instance bu Ndakaaru moom Ayib Daffé nee kat 14 heures ba naga ni rek ma nga toog foofu nag ñoom ñu wax leen na leen dañoo am pause ginnaaw gi mu toog fa ba 18 heures waaye nag lañ ko daal di wax rek moo dina yow kenn kese yaay dugg sa issue du dugg mbir mu nu mel nag mu gis na rek affaire dictature dëgg la mu daal di yëkkatiwaat ay kaddu moom ay dafe nag ne moom à chaque fois nag ñoo xam ban bés dañ koy wax rek waaye saa yuñ ko waxee ne ko ñëwal lekk moom nag dina ñëw waaye nag ma ngay joxañ baaraamu tuuma ki nga xamante ne moom mooy jëwriñ bu ñu dénk kaaraange biir réew meek bitim réew di maître Sidiki Kaba mi nga xamante ne dafa jël ay takk der yu bari rek teg leen fi nga xamante ne nag moom mooy ca boobulee moomeel ba noppi rek élément commissariat bu Médina ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay GIE jeunes yi nga xamante ne rek ñoom ñoo koy empêché pour mu mën a gis directeur général des élections di kat yi nga xamante ne kii di Ayib Daffé daal dina ko yëkkati yëkkati moom mandataire Ousmane Sonko bi jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné ba cloche de notification ngir amaat yeneen i info